والجل والدجال في سوداني في زرق والمغرب والبيدان ورحمة الله bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di jottali kàddu yu bàyyikoo ci sëriñ Abdul mu jële ko ci sëriñ Abu Baraka mu jële ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na leen fi yàlla boole yàggal ak képp ku leen ko yéene ak képp ku ko bëgg kàddu yi nag ci ñaari tomb yu gàtt lañu koy tënk jëkk ba mooy fàttali ñaareel ba mooy soññee tuuti fàttali gi mooy bisub tey jàng nañu ko léegi sëñ bu mag bi wax ne bis la bu danañ ca def ay xéewal xéewloo ko waaye nag xéewal yooyu dañ ko war a sant yàlla ndax bisub sant yàlla la jaare ko ci jaar jaare ko ci jëfe ay ndigalam mu mel ne mi ngi jóge ci kenn ci jaamam ñi nga xam ne daa amoon aw ci aw loosam lu mu fi doon dox ni ko fi doomu aadama yëpp yi doxe waaye yàlla day tànnaat ci biir doomu aadama yooyu di ay jaamam ñoom ñëpp ñoo xam ne daf leen di yónni ci aw nit kooka digal leen tere leen su leen fekkee ci lam leen war a fekk mu soññi leen ca su leen ca fekkut mu jëm leen ca yóbbu te toogloo leen fa am ca jaamam ñoo ku ku ñuy wax Seydina Ibrahima alayhi salaam bokk ca dëkk ci ëpp dëkk di fa dund pas-pasam ba mu yàgg ba siiw mu wéet ca lool yemut ca wéetaay wa waaye ay fexekat fexeel ko ba génne ko dëkk ba cig tënk ndax la muy wax ak lañ xamoon du benn jooju tuuma rek lañ ko tuumaal yàlla jaarale ko ci ay natt yu metti yoo xam ne benn bu ci nekk doy na sëkk waxtaane bisub lëmm jar na fàttaliku waaye ba ci gën a ràññiku moo jàkkaarloo woon ak suñu boroom ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ma bokk ci ñu baax ñi waaye duñ yem ci baax rek waaye dañuy baaxalaate rabbi habli min alsaalihin loolu nag la ko cee gën a dimbale moo yàlla may ko njaboot goo xam ne bu fa jógee it bu leen yàlla yónniwut ni mu ko yónnee it lam doon ndox mën a wéy suñu boroom ne fa basharnaahu bi gulaamin xaliim yàlla dogal nag ca dogalam ba mu may ko doom fekk mag na lool ci ay at yàlla dogal ba mu demee ba tàmbalee looy looy tuuti suñu boroom digal ko mu rendi ko ci gént falamma balaga maahu saaya mooy dem na ba di looy looy mu gént yàlla ne ko rendi ko foofu nag lañ fay gën a jàngate mooy ku am njaboot nanga nga dund ak ñoom ci melokaan woo xam ne euh, loo leen wax danañ ko gëm looleen wax ñu gëm ko ci danaa def walla ma def ci gént la gis suñu boroom ne ko rendi ko mu xëy woo ko boo doomam jooju ne ko yàlla ne naa la rendi daa fekk lu mu ko mas a wax rekk dëgg la ñu dégg ci ne ku am njaboot ak nu mu leen mën a jaboote na sàmmonteeg kàddoom sàmmoonteeg melokaanam sàmmoonteeg ay jëfam musu ko wax lu amul musu ko wax lu dañ lu mu ko ci tegal euh, taxi bi mooy qaala yaa bunay inni ara fi lmanaam anni adbaxuka fanzur maza tara demal nga waxtaan ak sa njege naay ba xam loolu noo ko gisee mu ne ko waxtaan naa ak sama njëg ñaay ba noppi ndax loo ma mas wax teg naa ci sama bët te mësuma gis nga jëf loo xam ne bokkut ak lu ñu naan do yaa abati ifal ma tu'mar sa tajiduni insha allahu min as-sabirin waxtaan naa ak sama njëg ñaay ba noppi mooy defal li la sa borom digal ci man mu diisoo ak soxnaam mu ne ko defal ci sa doom ji li la yàlla digal ci moom loolu nag buy ñëw ko ñëwaat wares nay fàttaliku ne doom ju nekk yaway doomi Seydina Ibrahima joojee waaye ku yilif njaboot ku nekkit yaway Seydina Ibrahima ca jamono yow yaay ci pas-pas ci settantal loola bokk yi mooy waral bisub tabaski ba mu demee ba war a jëfandikoo nag ndigalu suñu boroom loolu ci la ko suñu borom jël jëlal doomam tegal ko ne wattee ko am xaaf falamma aslama wa tallahu lil jabini wa naadaynaahu an ya ibrahimu qad sadaqta qad sadaqta ruya inna kadalika najzi almuxsinina inna hada la huwa albalaau almubin wa fadaynaahu bi dibin azim wa tarakna alayhi fi alaxirin moo tax ba mu ko jotee ak xaaf moomee ci la ko ne yow am nga way wudul fay ba faaw kon ci tënk daal euh, des na ci fàttaliku gëm yàlla te doyloo ko yam ca waaye des na ca soññante it kenn ku ci nekk ñam yilif nay fexe ba duñ gis muy def mukk lu ñuy yóbbu loxo gémmiñ te du tip waaye lu mu leen waxit it nañ ko gëm mbokk yi kuy naxe njabootam gu ndaw bëgguñu tiit saa su nekk mu naan leen gaynde gaa ngi ñëw wala ñaay waa ngi ñëw bu yàggee dana xam ne gaynde du ñëw te ñay du ñëw ndax bu gaynde bu bu gënee gi demee ba xam ne ba xam kay gaynde mooy kan dana xam ne bu gaynde gi ñëw du ko ko wax la kilifa àndoon ak njabootam def lay def foofu lay jeexale koo xam ne daa ànd ko njabootam ñi yomm mi ba yàgg ñu ne ci cët ci gaynde googu ma doon wax njaboot gépp ne ci ginnaawam yaakaar ko kenn ci ñi ko jege ne ko waaw yaay kilifa gi de fi toll nii tembe lenn lañ am ci lu ñu lay laabiire mooy nga daw mu ne incha allah daal di fëx ñu topp ko foofu li ñu fi jàngate mooy mi ngi ñëw mi ngi ñëw joo xam ne <clears throat> xam nga ne bu ñëwee da la fa fekk yow da ngay daw ni loolu des ci jàngate wax dëgg njaboot dañ leen di wax dëgg tey def ci seen kanam loo xam ne loxo du yóbbu du dem gémmiñ te ab ko ci yóbbu kon njàngat mu rëy nga ci bis bi yàlla noonu yàlla dimbale ba jaamu yàlla giñ ci def mu nangu ko te bu ko nangoo yàlla ñu ko làqal foo xam ne yàq du fa yegg sëriñ bi nag mi ngi ñuy fàttali e, ñu teg suñu tànk foofu te fas yéene bis bu romb ñu jàppe suñu bopp ci pas-pas ci gëm yàlla ak doyloo ko jëmmi Seydina Ibrahima Dia ndax yàlla nee na ko fiy des ba faw ginnaaw dafay des ba faw rek la doon def faaw am ñu ko yor kenn koy na ci jëm a fexe bokk waaye ñi njaboot itam kenn ku ci nekk na fexee bokk ci pas-pas ba doomi Seydina Ibrahima ja yoroon ba di xool kilifaam ak ñaari gëtam bañ a tegg gëtam ci moom ba fu mu tegu tànkam su ko fu mënut tegit mu jéem fa mépp sëriñ bi nag nee na nun ñi ñëpp dañoo am kilifa goo xam ne e, ku ko xam te nekkoon feneen it da ne woon géej xam ko ndax kenn du ko xam di ko bañ euh, ay soppe la am ak ñi ko bëgg ak ñu ko gëm te kenn ku ci nekk la ko ca bàyyi moo ca bàyyi moroomam nee na ku am kilifa gu mat kilifa muy as cheikhul xadim da nga ko naan nankutum téyeeku ak say yoxo soo su la ci sa yoxo doyut it nga génn ci mbedd mi xool ku yor yoxo yoo xam ne doywu ko dara mu abal la ko nga téye ko ci xam ne kat yii wër yëpp e, di taxawaalu luy taxawaalu lañuy ñuy wër wala koy taxawaalu ndax ki jël gànnaay jëm ci àll bi di wuti naat naat yi ne ci dëkk bi taxu koo jóg ndax xam ne naat gu ne ci ay yoxo waaye naat yi ko tax a jóg mooy naat yoo xam ne ci àll bi la nekk nekku ci loxoy kenn ku dul loxoy yàlla moom itam mu ne ci loxoy yàlla te yàlla mu wax sax ba rab yi nga xam ne dañoo nekk ci àll bi ku ci mel ne euh, kéwal ku ko seen ci àll bi te am ca ndigal sañ nga koo teg bal mu daanu nga fekk ko fa waaye bu fekkee da nga koo fekk ci dëkk bi bëgg koo jàpp ci si biir kër soo ko tegee bal ba mu ne këpp it doo ko sañee jëfandikoo la ko waral mooy kii daani ciy yoxo te kay newut ci ay yoxo ki ne ci ay yoxo am na fu ñuy jaar ak moom waaye ki ne ci nekku ci loxo it am na fu ñuy jaar ak moom kon yàlla nañu yàlla yàggal ci loxo yañu war a yañu war a nekk te saxal ñu ca te xooloo ñu ko te bañ ñoo xooloo leneen sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di ñaan yàlla teew gii ñu ko fekk teewee ren fekke ko mi ngi ñaan yàlla ñu fekke ko déwén te bàyyi kilifa yi te may leen ak wér te saa buñ geesoo gis leen gis nañ ci seen gannaaw mi ngi sant mbokk yëpp ak fu ñu mën a bàyyi ko gis na ne ñi saafoonteeg moom ci biir mënut a jaar ñu ñëpp seeni tur waaye ñëpp moom bàyyiwut kenn fu ñu mën a bàyyi ko fépp bàyyiwut fenn mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nañ ko fekke te moom it suñu borom bàyyil na ko fi moo ay kilifaam ñoom ñëpp ndax damay faral di wax ne ñu yomba àndal lañu koo xam ne na ko sëriñ Saalihu Mbakke radiyallahu anhu waxe woon ku koy dox rek faw sak njaboot dañ la xool te dañ la topp soo jiitoo dox doxin wu yem wuñ la mën a toppe boo leen rawee taxaw nekk leen buñ ñëwut nga wàññi ko xool leen lu leen tey ñëw yal na ko yàlla fay moom sëriñ Saalihu ñàngale mu réy la kon kàddu yooyu la sëriñ boo waxoon nañ ko jottali fu waay mën a bàyyi ko yàlla na nga àggat ci jàmm te ñi ñi ci bàyyi it yàlla na leen fi yàlla dañuy bàyyi leen fi ci jàmm te liñ ci am ci bi yool yàlla na ko suñu borom nangu te dencal ñu ko fu yàq yëggut euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah wasarama fi la di turan wasama